ملكني الكتاب ربنا الكريم وإنني عليه بالشكر أروم ملكني الكتاب ربنا الكريم وإنني عليه بالشكر أروم كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب ألف لام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 زادني حب الأمين والأمين علان للقلوب رب العالمين وقاد لي حب الأمين والأمين لم ينه إلا كل حاسد حسد كوني على الأعداء مجل أسد لم ينه إلا كل حاسد حسد كوني على الأعداء معجل أسد كرمني الكريم والمكرم وانقاد لي من الجميل الكرم أعطاني الله بما لاختار لي بمن قدمه مختارا لم ينهني مكر ولا استجرام الفراج والانتهاء لجنة الخراج ليتقول الجنان بشرى بجاه خير العالمين البشرى تنقاد لي خير تفر الناس له وفر الدر والخناس تنقاد لي خير تفر الناس له وفر الدر والخناس أكرمتني في السر والجهار وكنت لي في الليل والنهار أكرمتني في السر والجهار وكنت لي في الليل والنهار بارك لي بالعمر حيث كنت الله من بك له سكنت أنادي بالغرب

ya imaam أكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيت والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا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 ginnaaw bu ñu ko santee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taalibe bi ci Sëriñ Tuubaa fas yéene jëfe ndigal nañ ko jëfe woon ci njëlbeen bi dinañ jottali ay cant yoo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax mbir lii ba mu ba mu ko joxee ndigal jëfe nañ ko nam ko diglee woon wala sax nu ko raw noo xam ne kawe na njortam waaye moom it defal nañu ci loo xam ne kawe na suñu jot ndax jéego yim jóg jaar fi jaar fépp xool ñëpp xam ne ñu ngi jëfe ndigal li loolu rëy la ci taalibe yëpp rëy la ci bokk yëpp wax na ni nag mi ngi sant mboolem ñi mu bokkal Serigne Touba ci tiraanga yi nga xam ne def nañ ko ci kër yi nga xam ne mbooloo ma fa nekkoon mépp Serigne tiraanga doy na sëpp foofu ca kër ya te ñoo ko fa def di sant mboolem ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci sarax yi nga xam ne digle woon nañu indi ko ci penku jumaa ji gis nañ ko nam toll nam ko waxoon daal nee na jëfe nañ ko noonu waaye moom itam lam ca yéene woon ci sunu biir jàkk àdduna ak àllaaxira um ko néwut ni Sëriñ Tuubaa may nanu ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam wax na Sëriñ Muntaxaa nee na Sëriñ Tuubaa moo ni rajaa man bi yataallaqa yura muhaqqaqan wa maa yasuu lan yara ginnaaw sëriñ bi wax loolu nag booy boo suñu jot rafet suñu ngëm dolli suñu yaakaar dolli ko sëriñ Tuubaa gën a jàpp ci moom xam ni ñaanal ko mu yàgg fi te xam bu fi yàggee lépp luñ bëgg ci liggéeyal sëriñ Tuubaa danañ ko am sëriñ baa ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp rawatina nag mboolem ñi nga xam ni ñoom la joxoon liggéey bi teg ko ci seen loxo ci ngéejul sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdou Latif ak ñi mu àndaloon ñëpp ak ñi nga xam ne ñooy waa daara alxuraan ñi nga xam ñoom la àndaloon ak waa Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam fi nekkoon ak waa wilaaya yi nga xam ñoom la doon toggaloo waa Hizbut Tarqiyyah ñëpp sëriñ bi nee na gis na seen taxawaay gis na seen seen seenu farlu ci ndigal li nga xam ne joxe woon na ko lépp mat na dara manqué wut mi ngi sant yàlla bu baax a baax di dollee sant nag ci lim ci dolli woon muy kuréeli xasaayit yi di ci jiital ki nga xam ni moom nañ ko tegoon ci loxoom muy sëriñ am satu Mbàkke moom sëriñ Suwaay bi gis na taxawaay bi bu baax a baax a baax gis na kuréel yëpp gis na njàng mépp xolom seet na guy mi ngi ñaan njàg koo teewe mu njàg koo teewe te lépp luñ ci yéenee wala ñu fas ko ci suñ borom defal na ko nun nag moom moo nuy fasal jëfi ndigal lan man waaye moom mooy fas moo xam la mu fas diggante moom sëriñ bi te mu ko lu loolee na am waaw jàngkati yëpp ñëwoon nañ ci dañuy yëkkateeg ñuy kuréel ñëpp ci njiitu sëñ am satu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou bi nañ li ma ko waxoon léegi sëriñ bi xolam seet na ci guy yi ndax loolu rek la bëggoon ndax loolu ni ñu ko waxe woon ci tàmbali ba rek sëriñ bi ñaar yooyu rek la am muy alxuraan ak xasaayit xasaayit yi itam ñu xam ni li tax li tax muy suñ lépp moom lañ xamee sëriñ Touba ndax alxuraan noom ñëpp a ko bokk waaye xasaayit nag day loo xam ne ni mbirum sëriñ Touba boppam la moo xam ni moo ci aw di liggéey yonente ba am di am lépp nañ ko waxoon ca woote ba ndax xasida yi wuutewul am daax ak salawaat te am daax suñu borom moo ko digle moo ko jëkk a def digal digal ñëpp ñëpp ñëpp di ko ci roy wa innaka la ala xuluqin asim salawaat yi itam moo ko jëkk a def digle ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman waaye suñu jàmbaar ji donte ci loo xam ne nii nag moo gën a rafetal suñu jort ci xasida yi lam ci dolli moo di ku fi mës a nekk da ngay julli ci yonent bi rek allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yem ci moom nag moo jëkk a ñëw ku xam ni bu yàlla diglee boo defee ndigalu yàlla loo ca teg suñu borom def muy def julli gum julli teg ci ak ñaan julli gum julli teg ci ak ñaan ba moo xam ne ñoom xel ba gis nañ ko ci nooru daaray ni jaar batul maraaxib mboolem xasida gum def bu ne bu ne allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim teg na ci ak ñaan te wóor nañ ñëpp ni ñaan yooyu dina na loolu moo tax sëñ bi boole woon ko ci alxuraan ñun ñëpp a ko bokk xam nañu dara jaam xam nañ fi ko sëriñ Tuubaa teg xam nañ nam toll ci moom ndax moo ko waxal boppam kon nag sëriñ bi nee na gërëm ñëpp di sant ñëpp di soññewaat nag alxames ji alxames ji nag moom kenn ku nekk fa nga nekk rek mën ko faa def jël ñu ñu ko defee nii ñu ko defoon ndax coono yi xam na coono yi da seet nag waaye gis na xam nañ taalibe yi fañ nekkoon seen seen seen sëñ tuubaa tey jii la gën a raw ndekete ndax ku gis bañ ci mii tey gis ni mel da nga xam ni seen dara soppiku sëriñ Touba ndigal rek la déglu ak ak ak ku leen ku leen ku ci sëriñ bi kon nag mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di ñaan ñu yàgg koo teewe te lu ñu fi ñaan suñu borom nangu ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamira biya